ngay gis ñu ñu naan la woy cigarette dara nekku ci garaawul nangam bi tubaab bi commencé def seen campagne yu bari ñu ne woy woy woy c'est vrai que garaaw na tubaab bi moo leen war a wax lan moo baax ak lu baaxul yéeféer yi ñoo koy wax wala wala dañu war a dellu ci source bu baax bi yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel comme français boo dem ba yaakaar ne lu baax rek lu am lu war a jógee loolu benn mentalité boo xam ne suñu ay maam suñu ay yàlla loolu la ñu yar non mais yaakaar naa ni suñu maam yi yoru yoruñu woon idée boobu hmm. loolu xam nga lan kañ la après indépendance bi parce que suñu maam yi d'ailleurs boo xoolee da tubaab bi rek la ñu ci bëri nangu ñu dugal seen doom yi tubaab hmm. ñu bari ko woon mooy problème bi problème bi moy après colonisation bi gaay di def indépendance décolonisation <laughs> bi mu amé gaay yi dañoo bàyyi loxo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, ah, ki autorité yi légui ay nit ñu ñuul lañ comme ñun mais ay tubab lañ ci biir légui nak ñun ñu commencé wañu suñu loxo ci opposition biñ doon am par rapport ak sen euh, sen euh, doxalin boo demee ci bindu ñoom Sëñ Tuubaa ñoom Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu et cetera da ngay gis mais ben révolte ak ben opposition bu claire par rapport ak doxalinu nasarani di wax ci ñoom mais wax yo xamne mais vraiment yu deugër la mais lan motax tay tay lan moy problème bi ba tax ñooñu ni ñu maanaam ñooñu seen ay ndono laay wax parce que tamit euh euh seen ndono yi bopp dem nañu ba léegi ñoom ak tubab bi dañoo déggoo daanaka ci lépp lan motax motax tubab bi échoué won na ci court terme bi il faut qu'on se dise une vérité parce que yaakar naa ni feeg defuñu affaire yoyu nonu manam di xolaat suñu bop di dellu ci wat duñu gis réalité bi té duñu mëna a suñu tank fi ko war a il faut ñuy cri du du critique ay individualité critiquer wuñ kenn critiquer wuñu kenn mais liñuy wax moy il faut que ñuy xol réalité bi lan la bu ko defee ñu jéem avancer ci karam comment ça se fait que xam nga xam nga tay pour tubaab bi bimu au début jamono période coloniale dafa xéxon dafa pertoon bataille psychologique bi ak bataille sociale bi manam bataille idéologique bi da ko perton kok mom parce que ñepp gaay yi li ba li doon bañ mom li doon bañ yëpp gars ñu ko doon def mënu ko won gagné mais loolu à court terme la won mais à long terme gaay yi nañ xool rek li xew <laughs> à long terme gagné na xex bi de à long terme mom dafa gagné xex bi maintenant nak il faudra que ñu retourner waat té bayyi suñu euh, euh, nu mu le le la nostalgie du passé ah, il faut ñu bayiko nostalgie bo ñu am ci passé bi di bako période yooyu rek ndeysaan suñu mag ñi ndeysaan ñom El malik ñom seigne suñ Touba ñoom gars yooyu rek deug la il su dem nañ liggéey bu rafet mais lutax tax ñun suivre parce que tubaab bi moom ñi mu formé mom ay talibé ñoom dañoo gën a farlu taalibe gaa yi ci des loolu la il faut lool mooy problème bi mooy tubaab bi moom ñi mu formé xam na li mu bëgg a def ci ñoom te def na ko ci ñoom farlu na ñi ci des nag sëriñ si ñoom seen taalibe yi dañoo desee farlu dese na farlu dese nañ farlu même bu dee góorgóorlu nañ parce que mënoon na gën a pire nii mais problème bi mu ngi fi yàlla nañu yàlla sàmm ala kulli xaal liñ ci bëggoon xam daal liñ ci bëggoon wax daal ndox mi ñuy wax nga xam ne mën nañ ko naan mën nañ ci sangu farata mën nañ ci jàpp ah nañu ko xool ci cadre alquran ak sunna maanaam ñu dellu si waat ci wàllu ruux bi mu bañ a yem rek ci cadre biti bi ñu xam ne ñun ndox lépp lu ñu appliqué ci lu dul noonu xamal ne ñu ngi naan ndox mu sobewu maanaam li ñuy ressourcer sobe la te kon bu boobaa suñu yaram yi ay sobe ñoo ciy nekk moo tax problème bi yëpp foofu la ne moo tax suñu jikko yi nekk ay sobe am na su doon ndox mi nga xam ne moom la ñuy naan di ko naandoo maanaam bu sens figuré bi yaakaar naa ne yéen a ngi koy <laughs> ci ndox bu doon ndox mi ñu naan dafa laaj tey laabalaate te boobu benn la parce que ndox yi li ñuy bari bari benn façon rek moo ci mën a jàpp moo ci mën a sango farata moo moom lañ ci mën a naan mooy tax moo astaxfirullah moom lañ ci mën a sango farata moom lañ ci mooy taxuur bi boobu tamit na nañu delluwaat ci boobu te boobu benn la mooy leeru alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala alam wa sallallahu ala nabina muhammad voilà day fitra waaw kay jazakallahu xayran subhaana bika waaw bismillah ñu gaaw ci bu ko defee a'uuzu billahi samii al-aliim mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah waaw question bu njëkk bi kii day laajte nga fàttaliku ko ci ngëneel yi nga xam ne sarax baax na daal bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu ah sarax bokk na ci njariñ yi muy jariñe moom mooy day sellal nit da koy laabal mooy liñ tàmbale woon liñ doon wax sànq li nga xam ne moo koy gën a dëgëral moom mooy généralité umum maanaam comme liñ doon wax ci am ak xaas sànq généralité waxu borom bi subhaanahu wa taala bi naan xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mu ne na ngay jël ci seen alal yi sarax boo xamante ne daf leen di sellalal te daf leen di laabal mais rek loolu asaka moo taxoon ñuy wax mais yeneen sarax yi tamit dañ ciy duggaale ci biir loolu moo tax alquranul karim daal di tagg ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla ñi ragal yàlla daal di alquran njub la pour ñooñu mu ne hudan lil muttaqin moo mu daal mooy ñi nga xam ne dañoo gëm maanaam fekk ñi ngi gëmee ci kumpa wa yuqimuuna salaata dañuy taxawal julli wa yutuuna zakat dañuy joxe azakat ba par daane wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun te liñ leen joxe yëpp maanaam luñ leen wërsëg dañ ciy dañ ciy dépensé maanaam mooy dañuy saraxe bokk na tamit ci li nga xamante ne moom moo nekk ci ngëneelu saraxe mooy li al li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ittaqullaha walaw bi shiqqi tamra na ngeen ragal yàlla mem bu fekkente ne ci ah maanaam ab dogu tàndarma la maanaam même bu dee aw daggitu tàndarma nga mën a saraxe ngir yaakaar ci yàlla fegal la ëllëg mbugalu àllaaxira def ko parce que am na am na am na am na yow ba pare tamit li yeneen yenente bi wax ne sallallahu alayhi wasallam day tax ah. <laughs> na saraxe dafay tax am maanaam euh, euh, yére maanaam day tax nit ki lu saraxem gën a bari maanaam yawmal xiyaamati ak làmbaayam gën a yaatu maanaam mooy li muy mën a sàngoo yawmal xiyaamati bis bi nga xamante ne kenn ku ci nekk buy génn ñoom ñëpp dañuy rafle duñu sol yére ñi nga xam ne ñooy gën a rafet la yére ba pare gën koo mat la mooy ñi nga xam ne ñoo gënoon a bëri lu ñuy saraxe ba pare saraxe day génnee ci xol ak bëgg àdduna day génne ci xol bëgg àdduna parce que day tax nit ki buy saraxe mooy jël na lu loo xam ne dafa cher ci moom mooy alalam ku nekk xam na ne parce que maal alal li tax ñu tuddee ko alal ci arab mooy mooy le fait que mooy maal xam nga maala mooy jéng na alal le fait que nit ñi di ci jéng nga xamante ne xol bi da caa jéng jëm ku nekk xam na ni alal xol yi dañ ciy jéng jëm léegi yow boo ko jëlee nga ne naa ko joxe ngir yàlla loolu day génne day day day setal xol ba pare daf koy label ba pare day yekiti ay maqama bokku na ci saraxe li nga xamné mom lay jariñ tamit comme li nga xamné mom la Cheikh Omar radiyallahu taala anu tuddu ci li yok ngëm yàlla nit yi mom moy saraxe suma ma sax mom la njëkk tuddu ci 55 mbir yi yok ngëm yàlla nit manam di saraxe mais di saraxe te yàlla tax mom motax ñuy wax waye amma saraxe nak amna benen beneen xeetu saraxe boo xamante ne am na njariñ mooy ngir faj aajo mooy nga ne damaa jël sama alal da parce que damaa am aajo ma jël sama alal bi ma saraxe ko loolu mën na nekk maanaam bu boobaa loolu saraxe boobu tamit maanaam insha allah loolu lu gaaw la ci faj aajo moo tax nit koo xamante ne dafa bëgg aajoom faju nuy génne di di ñaan nay ñaan borom subhanahu wa taala te ñaan googu na ko jiital ak sarax maanaam na génne sarax waaye nag am li nga xamante ne moom la ñu wax naan da ngay saraxelu ñuul saraxelu weex saraxel nangam nangam yooyu ah wallahu alam mais li gën mooy na nga rek li nga am loolu moom mooy li nga xam ne moom la ko tënkee sarax am maa nag ñi koy nag souvent du waxuma ne saa su nekk la de mais souvent affaire yu jinne day laqatu ci ginnaawam beneen mbir mi tamit mooy am na ñoo xamante ne dañuy saraxe ngir fas yéene bu ñuy saraxe seen problème yi ñu toxal ko jële ko ci ñoom yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ koy sarax loolu moo tax li may conseiller nit ñi ci wàllu googu noonu mooy ëpp ci saraxe yi nga xam ne ñoom la ñuy saraxe suñu jamono jii rawatina bu ñu naan da ngay saraxe lu weex wala da ngay saraxe loo xamante ne dafa mel nangam ak nangam wala ay ay yooyu noonu mooy ñu bañ koo jël parce que nit ñi léegi noonu la ñu maanaam noonu la ñuy xalaate c'est c'est dommage mais noonu la ñuy def jël seen jël guro wala yooyu yéene ci ne sama ay ak sama ay comme bu dee jigéen ñi sama ay jëkkër sama ay doom sama ayu njaboot yëpp na na ànd ak moom mën na ko yóbbaale maanaam saraxe li muy baax baax baax maanaam kon yooyu yu mat a bàyyi xel mais saraxe nit mën na saraxe bu amee aajo bu amee soxla mu génne loo xamante ne jël fonk na ko mu jël ko mu saraxe ko insha allahu taala bu ci boolee ñaan yàlla yàlla dana ko fajal bokk na ci moo tax ñaan bokk na ci gën a gaaw a nangu mooy ñaan yi nga xam ne dañ koy dañoo jiital ak saraxe waaye nag sarax lii nga am lañu wax wallahu taala alam naam bokk na ci jëf jazakallahu xayran bokk na ci jëf yi nga xamante ne ñoom maanaam njariñ ci du dox ba nit ki bu génnee àdduna moom mooy saraxe boo xamante ne day wéy maanaam loo xamante ne daf koo def mu nekk bi lu général beneen mbir mi tamit nga xam ne moom lañ fàtte wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajee ban saraxe moo gën ndox la wax dañ ndox mooy saraxe bi gën ci saraxe parce que lan parce que ndox dafa vital moo tax mais loolu boo ko xoolee da ngay gis ne daf ko par rapport ak époque par rapport ak circonstances yi mu nekkee woon kon ci kaw loolu mbir lu mu gën a vital muy nekk kon loo xamante ne saraxe bi maanaam saraxe loolu day nekk loo xamante ne dafa gën wallahu taala alam waaw <coughs> kii day laajte mu ne bu fekkee nit day rëbbi ji lan mooy medd wala du medd daal ci li muy dem rëbbi ji nan nan la ñu mën a considérer. rëbb dafa tegu ci li nga xam ne moom lañuy ñu wax ruxsa mooy ak woyofal loolu moom moo tax lépp loo xam ne dañ ko woyofal dañ koy natt ci nattuwaay ba looloo tax mooy dañuy wax laa qiyaasa fi ruxas moo tax ruxsa kenn du ci def qiyaas loolu moom moo tax mooy tey xam nga li li jaadu woon mooy rab bu mu doon su fekkente ne rayoo ko. rendi wuloo ko dagg baat bi maanaam put gi ak ñaari digg ji nekk maanaam ñaari sidit yi nekk ci ci wet gi tudd ci turu yàlla rendi gi baaxul loolu mooy cosaan loolu mooy cosaan maintenant bi nga xamante ne nag xam nañ ni rëbb nit ñi dañ koy soxla pour mën am yenn affaire yi ak dund charia woyofal ko loolu tax moo tax mu ne ah, mu wax euh, euh, euh, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu hadis bi mi ngi ci saxeew yi mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa côté ma ma ma ma maa anhara dam wa zikra smullahi alayhi fa kuluhu maa lam yakun sinnan aw zufra lépp loo xamante ne tudd nañ ci turu yàlla na ko ah lépp loo xam ne tudd nañ turu yàlla ma maanaam fii deret ji wal na ba pare tudd nañ ci turu yàlla kon na ngeen ko ah, na ngeen ko ah, ah, lekk mu ne ba mu des su fekkente ne maanaam Euh, euh, euh, bëñ la maanaam ba mu des ne bëñ moo moo tax mu tuuru wala boog ah wala boog mu nekk we ce qui veut dire que kon maanaam bu ma bu ma jëlee sama kuttu kuttu ab pitax du baax et cetera wala ma jël bëñ matt ko matt ko matt ko matt ko ba mu dee du baax mais ba mu des bu dee nag comme nag rëbb comme xaj boo yónni ni ko bismillah bu defee loolu mbopp dina baax parce que dañ ko woyofal loolu ci fal la aju voilà léegi xeer bi nga xamante ne moom ngay rëbbee nga daal di wax bismillah comme pitax bi loolu mën nañ ko def mais dañ ko tënk mooy il faut que mu nekk loo xam ne da koy jam deret ji génn mais su dee jamu ko deret ji génn du baax il faut que deret ji moo tax même même bu dee pistolet dañuy seet bal bi ndax bal bi da da daf koy assommer parce que tey bu ma jëloon picc picc bi parce que parce que xeer ñaari façon la dafa xeer yu ñëw ak xeer yu ñawul yu rooy rek bu dee yu rooy yooyu buñ ko dóoree mu daanu dee ndax dafa dafa assommé wu loolu baaxul loolu médd la mais su fekkee ne dafa ñëw nga dóor ko mu jam ko nga gis deret di tuur bu boobaa mu daanu dee loolu baax na mais da à condition nga wax bismillah bi nga koy sànni voilà bu deret génnul baaxul loolu moo tax même balu pistolet yi il faut voir ba xam bal bi day assommé picc bi wala bal bi daf koy jam deret génn mu dee loolu moo tax tey am xar tey bu ma taxawoon di ko dóor jël jël jël jël xeer dóor ko bopp bi mu asame wu daanu dee loolu du baax wedd la ah wala ma jël ab ab puur di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba mu dee même même bu ma waxee bismillah di ko dóor puur gi laa ko dóor ba mu dee loolu tamit du baax waaw non non non non non yii moom d'accord nañ ci waaw <laughs> voilà loolu moo tax voilà yii moom d'accord nañ ci parce que texte yi dañ cee leer wallahu taala alam euh, mooy si abattoir yi animaux yi. waaw ñu bàyyi xel. leen askan wi fay doo leen rey parce que loolu dañ ko par exemple lapin yi dañ leen dóor euh, benn coup benn jaaxul. baal ñu xam loolu hmm. leen agogé directement loolu waaw loolu dafa am teqantal bu njëkk. ah waaw dama ne si abattoir yi yenn abattoir yi fii Sénégal surtout dafa am yenn bett yoo xamante ne pour hmm. ñu rey leen ak fii tam noonu def fii da leen assommé ba pare doog loolu ah. boobu maanaam loolu dafa am tekkantal su fekkente ne dañ ko assommé assommé bi ñooy fekk ñu dóor ko moo ko rey ah bu fekkente ne déwul moom loolu moom mën na nekk wallahu taala alam mais nag mais loolu yeneen ci saa daf koy tere parce que daf ni inna allaha kataba al husna ala kulli shay wala al hasanata ala kulli shay yàlla dafa defar wala al ihsan wala inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay yàlla rafetal daf ko def ci lu ne moo tax mu ne même booy rendi na nga jël kii bu bu ñaw paaka bu ñaw nga rendi ko te nga woyofal te bul ko rendi ci fu ay moromam nekk wallahu ta'ala a'lam question bu ci top ki day lañ ndax euh, brosse brosse say bañ ak dentifrice ndax day yàq yàq ndiap wala yàq dedet wallah dedet non non non yàq ndiap dedet ndiap liko ko bari wul ndiap liko ko bari wul ndiap liko ko moy lepp lo xamantene dafa genné ci nit ki genné ci kanamam wala ci ginnaawam wala bok mu nek ko xamantene dafa xam wala mu nelaw nelaw yu fort wala boog mu laal jigéen laal goo xamante ne daf caa jublu bànneex wala boog mu am ko ca wala boog ñaar yëpp daje ci même bu dara génnul day yàq njàpp ci mazhab maliki rahmatullah alayhim wallahu taala alam wala boog mu mu am na yeneen yoo xam ne ay wuute am na ci mais yi ci gàttal ñoom ñooy yàq njàpp wallahu taala alam déedéet ah brosse à dents ak sotti du ñu benn al ndax lan te te te par exemple comme subhanallah li ñu doon wax léegi nii ah maanaam ndax soccu benn sun la boo xamante ne dafa taxaw yenent bi sallallahu lawla an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaak maa kulli salaatin ak beneen waaye maa kulli wudu sudul woon damay bañ teg coono sama xeet konontoon doon naa la diggal ñuy soccu saa yu ñu waree julli wala saa ñu waree jàpp ni gi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne asiwaaku matharatun lil fami wa mardatun li rabbi surtout day setal gémmiñ te day kontaan loo borom bi subhanahu wa taala mais nag nañu bàyyi xel benn affaire surtout yi nga xamante ne moom la yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam du bant bu nekk al arak lañ ko arak la udul arak mooy soccu bi mooy bii bant bii nii moom mooy udul arak bii la ah foo dem ci kii dañ koy jaay voilà léegi léegi ah niki noonu am na niki noonu tamit boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne soccu dëkk bu nekk am na am na ñoo xamante ne amuñu arak comme ñun Kébémer ñun amuñu arak mais mais am nañ ay bant yoo xamante ne dañ koy remplacer loolu ba tey day dugg ci biir sunna boobu maintenant brosse ci kaw loolu kon brosse à dents moom ci ci côté boobu rek dinañ bokk mais ni nga xamante ne loolu mooy ngëneel yu mag yi ñu ci wax yëpp bala nga koo mën a matale mooy sotti bi ak brosse à dents bi du ñu benn parce que am na masalan benn étude bu ma mës a bu ma ci internet fàtte naa fan laa ko gisee mais benn étude bu ma gis ñu ne <coughs> brosse à dents maanaam maanaam sotti bi <coughs> bokk na ci njariñ yi ci nekk mooy par exemple day joxe day tax digestion bi baax day tax digestion bu am surtout day tax par exemple ah qui mom muy microbe par exemple dafa am ay euh, euh, anu kan yow muy wax dañu ne ay ñaari médecin euh, égyptien la ak américain ñu def benn étude ci arab parce que dañ gis ne arab wawdul arab bi maanaam day setal gémmiñ dafa gaaw ci setal gémmiñ ba pare dafa gaaw day rey yenn microbe yi ba pare tamit dafa bëri ay njëriñ maanaam day tax maanaam kiiwu respiration problème respiration doo ko am ci nit koo xamante ne day faral di def di di di soccu ak arab di soccu bu baax niki noonu niki noonu Euh, euh, en tout cas bëri na ay njariñ daal yu ci nekk léegi moom mu ne ñoom ñu jël araak bi ñu jël ko defar ko def ko pat comme pat yi nga gis ñu koy jaay am pat yoo xam ne lañ ko defaree ñu defar ko mais ñu gis ni résultat bi affaire bi su ma juumul am na wala 30% pour cent d'efficacité de moins te dañ ko defaroon def ci pat pour di ko ñu gis ne am dix su ma juumul wala trente dama fàtte ban ban chiffre la pour cent de mooy d'efficacité microbe yi nga xam ne ñoo waroon a dee ci gémmiñ gi yëpp deewuñu ñu xam ne ko mbir mi ci bant bi la maanaam le fait mu nekk bant bi ñu gis ne ñu def ñu xoolaat gis ne ndekete bant bi moom moom ci boppam ñu def étude bi gis ne dafa am ay matière yoo xamante ne moom wuy am contact ak bëñ bi ci lañuy ñuy créer maanaam réaction chimique yi ci lay amee mu créer yeneen yeneen i mbir ci ba pare bokk na ci njariñal la fait que nit ki di jëfandikoo soccu comme li nga xamante ne noonu lañ ko euh, euh, même étude boobu noonu waxe maanaam ne dañu gis ne su fekkee ne nit ki day soccu par exemple day day dañuy gis ne am na ñoo xamante ne par exemple kii kii kii kii kii tux tuxkatu garab bi bokk na ci li ko gën a jafe mooy bokk na ci li nga xamante ne moo koy manqué bu ko bëggee bàyyi mooy le fait que muy am lu muy téye ci gémmiñ gi di ko di ko li muy ci loxo bi di ko def ci gémmiñ gi loolu da koy manqué te nit ki bu dee di faral di sotti maanaam manque boobu noonu mu doon yëg dootu ko yëgati xam nga brosse mënoo de foo toll di brosse mais mën nga def foo toll di sotti <laughs> te comme li Cheikh Hadji Ibrahima Sakho waxoon radiyallahu anhu bi mu naan surtout bokk na ci njariñ yi mu gënee cigarette mu laajte sotti ñaata lay jar ñu wax ko xaw ma ñaari dërëm xaw ma juróom waaw ñu laaj mu laaj cigarette moom ñaata lay dara ñu wax ko njëg gi ni mu différence bi ni mu màggee mu ne soccu day seetal génn di dindi ak xet gu bon ci moom wala déet ñu ne ko waaw mu ne cigarette na ñu wax ko contraire bi da koy mu ne te soccu dafa lewet maanaam nekkul loo xam ne cigarette dafa tàng ba pare xat gi da ngay waru te socc melul noonu waaw saxaar si c'est alors que socc contraire bi la waaw mu ne am na leneen sax mooy socc moom bu sa tubéy naree wadd sax nga ñoore ko ma <laughs> te cigarette bi mënoo ko te wallahu taala alam <laughs> waaw bisimilah. waaw ah, ci topp. waaw day nee na nga fàttali ko nan lay def rek julleem daal ci baax de salaam wala mm. xabla salaam. Mm. dëggam bu fekkee daf ci war a def euh, ñaari taaya wala. Ah, ñaari selma. ñaari lan. taaya pour pour. waaw jàng taaya bi ñaari yoon. waaw ah. salaam ak xabla salaam. Mm. dafa bok ci yërmande yu mag yi nga xamne sama borom subhanahu wa taala dako yonal ci lamine yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que su fekkonté dañuy wax ni nit ki ni ko saa yoo waree julli sa yu su julli yàqu da ngay dag reprendre kon shaytan ni dina ut buntu bu mag pour di jax-jaxal nit ki sa su nek mu del jax-jaxal est-ce que lii est-ce que lii est-ce que lii fo toll xamuto ko xamuto ni nga def juum nga ngeur dag reprendre alhamdulillah nga dag reprendre rat mu def lo wat lako nga dag reprendre rat mu def lo wat lako non la lay def loo kon mais bi nga xamantene mom la indi yoonal mbir mi muy ba'da salam ak qabla salam ci lañ xam gisee ñu lu mag bi nga xam ne moom moo ci nekk yarhamukallah ya lig li gàttal ci gàttal moy su dee da nga yok ak da nga wañ ci lay yok mais ñu xam ne farata kenn du ko qabla salaamal ak ba'da salaamal tay bu mo warono julli mo warono a sujjóot wala mo warono roko roko maraka bobu day ba day yàqu su fekente ne wessuna manam maanaam ci benen raka su ma duggul ci benen raka damay delu wat fama war fama lima tepp li ma tëb dama juli, delluwaat yeggale su ma salam, damay ba da salam, ndax dama yok suma julli mais li nga xamne mom ba da salam manuko ak qabla salam moy yi nga xamne ay ponk lañ ay farax lañ legui yi nga xamante ne nag ay sunna lañ tamit daf ci am yu dëgër yoo xamante ne boo ko defee da nga comme lu demee nekk taaya bi toog ci digg bi bii nekk ci digg bi ma maanaam mooy julli timis wala tisbaar wala tàkkusaan wala gee ñaari rakka yi ci digg bi moo war a toog taaya te defuma ko boobaa damay dina damay qabla salaam parce que damaa wàññi sama julli maanaam bala maa sëlmal ci laay sujjootaat ñaari sujjoot après daal di sëlmal dinaa ñëw ci ba xam danañ taaya wala duñ duñ taaya loolu danaa ci ñëw léegi su fekkente ne bi ci def la tamit noonu laay def maanaam bu fekkente ne damaa naroon a jóg ci ñaareelu rakka bi ma fàtte ko toog ba bu yàgg ma fàttali ko ne damaa kii ma daal di jóg wala après bi ma jugaatee sama xel dellu si ci toogaay bi lu mu gàtt gàtt gàtt su dee dama ci toogoon pour taaya dama koy defal baax da salaam niki noonu su ma waree tari ci kaw ma tari ci suuf Maliki rahmatullah alayhim ah position am na position ci ñoom d'ailleurs mooy position al imam al-Akhdari rahmatullah maanaam ne da lan da ngay bu ma waroon a tari ci suuf ma tari ci kaw damay ba'da salaam ndax damaa yokk mais bu fekkee ne dama waroon a tari ci kaw ma ma tari ci suuf damay la salaam damay def avant may sëlmal ndax damaa wàññi. parce que yooyu ay sunna lañ yu dëgër sunna yu dëgër yi nga xamante ne ñoom dañ leen di sujjootalal mooy taaya bi mooy kàbbar ma waroon kàbbar fàtte ko ak moo waroon a su kii astaghfirullah man ma waroon a tari effectivement bi nekk ci ginnaaw ma fàtte ko wala ma waroon a wax ci kaw wax ci suuf ma fàtte ko yooyu noonu dama leen di wala ma noonu ah dama leen di lan dama leen di sujjóotalal moo xam qabla salaam wala baada salaam mais lu ma yokk ci julli gi nag dama koy sujjóotalal loolu mooy bu ma wàññee mais bu ma yokkee dama koy sujjóotalal comme tey bu ma waroon a wax allahu akbar wala ma waroon a wax sami allahu liman hamidah daal di wax allahu sami allahu liman hamidah yokk naa ci baatu allahu dama koy sujjóotalal te tayuma ko dama koy sujjóotalal baada saa yoo yokkee rek baada ngay def voilà après ngay def donc ah waaw boo sërmalee ba pare ngay sujootaat ñaari sujoot saa yu ma yokkee parce que règle bi loolu su ma amee lu ma yokk sama julli damay sujootaat bu ma pare su ma amee lu ma wàññi sama julli damay sujoot avant loolu mooy mazhab Maliki rahmatullah alayhim euh, dama fàtte waaw waaw. da ngay def baax na après. da ngay def baax na après. su ma waroon a ba pare léegi su ma yokkee wàññi damay def xabla su may def damay am lu ma yokk ci julli gi ba pare am lu ma ci wàññi. léegi kon yooyu loolu yii yii yu mat ah, bàyyi xel la léegi su ko defee. ma daal di euh, ni ki noonu tey bu ma doon julli ba mu yàgg ma ma ma nar ma fàtte ni dama war a julli eh, ñetti rakka timis daal di julli ñaari sëlmal sama xel na ma eh yow jullee goo kii euh, matul ah, su julli gi matul fekk maa ngi place bi ma toog ba tey ba war te tey yàggul parce que su ma génnee jàkka ji wala place bi ma nekkoon bu dee comme fii nii la ma jekki-jekki dem fee dellu si boobaa day yàqu mais il faut ma nekk def ko ci place bi comme ni mu nekk ci xadiis dul ya xadis Zul Yadayni mooy xadis Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu bi nekk ci ñaari saxee yi nga xam ne waa ji yéen ci saa sam dafa julli woon euh, tàkkusaan daal di sëlmal fekk ñaari rakkaa la sëlmal ñu